Euh, ndeysaan arrestation am xam naa ne euh, métti nañu bëree bëri yàgg nañu nag gis ay arrestation ah yu yu yu laal en tout cas patriote yi mais bu bu Bassirou Diomaye particulièrement dafa dafa métti ñu bëree bari parce que image bi nga xamante ne maanaam bassiru daf koy joxe c'est l'image d'un jeune tu vois tellement poli ci comportement bi ci yar bi ba nga xamante ne maanaam li tegu ci kawam Euh, doon na effectivement lu ko métti bi condition yi nga xamante ne moom la ñu ko arrêté loolu yëpp dafay susciter ay débats autant ci li nga xamante ne moom mooy sur la toile autant sur les réseaux sociaux autant ci grand place yi foo munti dugg c'est-à-dire sénégalais yi on se pose cette même question et on a vu quand même soutien bi nga xamante ne euh, syndicat des impôts et domaines ñoom euh, def nañu ko ci arrestation bi nga xamante ne moom la ñu arrêté koy kii di Mbassirou Diomaye Faye na bu boo kiiwee ma liiral la félicité woo ci forte mobilisation seeni collègues ci assemblée générale bi nga xamante ne moom lañ doon amal assemblée générale extraordinaire euh, ca bloc fiscal ba waaye bureau bi itam euh, dafay saluer engagement détermination bi nga xam ne ay seeni collègues euh, def nañu ko pour apporter seen ay présence waaye également seen ay prise de parole apportant soutien ak réconfort au bureau exécutif ñu ne jël nañu nag ay résolution nab résolution yoo xamante ne dañu ko adopté à l'unanimité maanaam ñoom ñëpp àndandoo d'accord ci plan d'action bi nga xamante ne moom la ñu tëral mu tàmbali par dépôt de préavis de grève boo xamante ne defe naa demain la port de brassard rouge le 19 kañ la tey tey le 19 port de brassard rouge la ñuy def tey suba le 20 avril également daanu amal seen port de brassard rouge maanaam dañu takk seen morceau yu xonq pour wane li nga xamante ne moom mooy seenub mer beneen bi mooy journée de présence massive bu nu wootee le 28 avril ak le 2 mai waaye grève total bu ñu annoncé les 22 23 24 mai maanaam ñaar fukki fan ak ñaar ñaar fukki fan ak ñett ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai bi ñu ne grève total également fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom ak fukki fan ak juróom benn 14 quinze 16 juin donc plan d'action boo xamante ne dañu ko tàmbali ci mois de mai bi ñu nekk euh, mois d'avril bi ñu nekk jëm ci mois de mai ba ci mois de juin xam nga ñoo ñu élargir nañu loolu mooy wane ne maanaam nekkuñu ñoo xam ne dañoo engagé combat boo xamante ne c'est sur une courte période ci période bu gàtt la wala diir bu gàtt na li ñuy ñaan nag. mooy balaa ñoo yegg ca mai ak join ba ñu naan euh, ñoom agent yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca impôt et domaine bloqué nañu yëf yi ba dara doxatul te nag impôt et domaine nekkul service bu ndaw a ndaw donc Bassirou Diomaye fay rawatina ki nga xam ne moom lañ fa teg loxo xale la boo xamante ne dafa am ay prise de responsabilité yu am solo foofule ca ca DGID di koo xamante ne également dafa actif ci liggéeyam nit ñi seddal ko ko defe naa loolu moo tax au-delà des raisons politiques yi nga xamante ne jàpp nañu loolu moo euh, def ci rax ci maanaam dossier bien nekk outrage à magistrat nee nañ loolu lañ ko tegee loxo am na nañu yaakaar ne danañu ko bàyyi Nabou Cor mu mën a dellu ci ay activité am ndax nag ñi nga xam ne ñoom la àndandoo di liggéeyandoo nekkuñu ay nit ñoo xamante ne danoo nar a toog di seetaan croiser les bras te xam nga loolu daf may renvoyer ci kaddu yi nga xamante ne El Hadj Malick Ndiaye waxoon na ko ci émission bi mu doon def ak sunu confrère yu Walfadjri di wax ne nag ni yoon mu ngi door a teg loxo koo xamante ne tey bi mu am te importance bi pour firndeel kàddu El Hadj Malick Ndiaye dafa mel ni Nabou lii moo koy dëggal maanaam grève bi nga xamante ne ak takku morso yu xonq yi boole beeg dénoncé yi nga xamante ne ay collègue am fas nañ ci yéene taxaw te mu doon full ak fayda ci ñoom farata goo xamante ne nekkul dañ ciy kafantoo ko waaye yow oustaz Diaga mhm. kilifa goo xamante ne nii yàlla da koo def mu nekk impôt et domaine di fa liggéey di fa daan dooleem xëy na amaana noon am benn taxawaay boo xam ne dañu koy xeebee. Mhm. kooku bu nu ko tegoon loxo est-ce que kon sagar dana xeeñ. li tax ñu teg ko loxo sagar xeeñ. loolu mooy wane ne kon au-delà ci ay maanaam politique gi muy yëngu. moo xam parti bu mu bokk di Pastef nga xam ne ñoom moom fu mu nekk nii ku ci nekk Pastef mu booyee boo nga waaj te xam ne arestation yi mu mën naa jógee fu ne moom à tout moment man j'ai l'impression que man ñoom rek ñoom ñoom ñoom ñoom rek la ñuy topp ñoom daal la ñu xool seen ay mbir ci publication Facebook euh, ñu teg la loxo jàpp la déjà ci ni ñu la jàppee nga xamante ne ñu bëri nu ngi koy naqarlu te nekkul condition yi nga xamante ne maanaam moo moo gën mënoon nañu ko jox convocation mu dem wuy ji tout simplement euh, donc loolu yëpp nag e surtout courage bi nga xam ne Bassirou Diomaye Faye et sax il faut avoir le le courage de le dire aussi maanaam dëggu gi mu àndal moom Bassirou ci kaddu yi mu bindoon ba mu toogee da jàkkaarloo enquêteur bi ci li nu liir ci information mooy ne dellu ci ginnaaw d'un iota mooy ne gis-gisam la doon joxe opinion am la doon joxe te koor les gens ont besoin ñu génnee li nekk ci seenub dënd les gens ont besoin de donner leur opinion par rapport ak ni nga xamante ne noonu la réew mi di doxee mu laal sujet d'actualité wala mu laal koo xamante ne rawatina dafa am attrait ak seen ay leader politique c'est-à-dire que Bassirou Diomaye fay bu amul position bu mu am El Hadj Malick Ndiaye position bi mu am bu ko amul keneen ki euh, nu mu tudd euh, le jeune juriste là nga xamante ne le greffier la nga xam ne tubaarkàlla bu bu plateau yu mu dem démb il était sur Walfadjri euh, dimbali ma nga naan waaw ngañ dem ba nga naan ma. Mbappé dama ko fa ay waay man mii. yaa ngi topp internet ma def yow. bilaay internet yi yéen a laqale nag. ñooñu bu ñu amul position bi ñu am c'est-à-dire que bu ñu amul position opposant ban position la ñuy am na bu koor mais un opposant dans un état démocratique s'oppose bien sûr s'opposer ne veut pas dire que xëy na amaana am nga sañ-sañu def lu la ne mais man dama gisul. leen lu garaaw loo xamante ne ñoom ci seen ay idées yi ñuy défendre. maanaam am na ci lenn lu war a mën a mérité lii fi xew nii yépp et te mu doon lu nuy regretter. mami doguma la finalement ay cadre Pastef rek la ñuy jàpp bu ñu gisee euh, fadilu Keita l' épisode de Fadilou Keita est passé par la euh, El Hadj Malick bu yàggul dara ba finalement ñu mu yor bracelet électronique euh, tey muy jomaa yi Faye ay cadre di secretaire général bu parti bu Pastef finalement cadre yi rek la ñuy mel ni moom la ñuy jàpp yoon di leen teg loxo est-ce que du plan yi yëpp du pour dissoudre finalement lii di Pastef ah man de bu fekkente ne sama avis nga bëgg am. Mhm. man de sincèrement ni nga xamante ne noonu laa koy liire dama am impression que dañu am euh, maanaam volonté bi euh, wala man bokk ni ma koy liire ak ni ma koy comprendre mooy nii dafa mel ni dañoo bëgg leur couper l'herbe sous les pieds un peu et euh, force bi nga xamante ne maanaam patriotes yi am nañu ko sur le plan organisationnel parce que c'est des gens très organisés quand même politiquement parlant et puis qui défendent maanaam dañu am intelligence boobu c'est des gens qui dérangent même sur ay plateau boo bokkee ak ñoom plateau am nga problème par rapport ak idées yi nga xamante ne moom la ñuy défendre xëy na amaana donc li nga xam ne ñoom waxoon nañu ko ñoo ko wax déjà <laughs> le chef de l'État dafa njëkke woon euh, euh, par dire que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression euh, on a l'impression que c'est ce qui est en train d'être fait mais au-delà de tout cela on a vu et partisans euh, également du, du, du chef de l'État notamment wax ne ñoom dañoo am volonté ou dissoudre le parti PASTEF est-ce que kon ci tentative de dissolution boobu la ñu nekk mais en tout cas ce qu'on constate ce qui est vrai mooy ne ñi nga xam ne ñi cadre yi wër mais surtout ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bu am solo bi parce que Bassirou c'est quand même le secrétaire général El Hadj Malick Ndiaye chargé de communication ak ñeneen ñi nga xamante ne jot nañ leen teg loxo te je suis sûr que jeexagul Fadilou Keita ak ñu ñu ci mën a lim ak ñi nga xamante ne Nabu ko jàpp nañ gis nañ fi ay maire également n'est-ce pas yoo xamante ne am nañu ay jafe ak wàllum yoon ñii dañu am ay jafe-jafe ak wàllum justice ñii àtte nañu leen ñii tëj nañ leen kaso ñii takkal nañu leen bracelet électronique loolu yëpp nag vraiment mënul ànd ak climat boo xamante ne maanaam climat d'apaisement la et je reviens sur la personnalité de Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne c'est un inspecteur principal des impôts et domaines en service de la législation mooy ne ku ko xam na lu jëm ci wàllum loi ak coopération internationale du tuuti ci réew mi ku nit war a mën a jàpp rek ko benn côté kooku amal na njëriñ Sénégal parce que mu ngi liggéeyal réew amal na njëriñ également sur le plan international parce que justement portefeuille am ak ci li muy liggéey dépassé na vraiment li nga xamante ne moom mooy moom mooy réew mi donc politique warul mën a euh, yàq dara loo xamante ne maanaam mën na gàllankoor sax li nga xam ne moom mooy liggéey te waa impo et domaines nag bu mënu grévé nga xam ne nag waa direction général des impôts et doon service bu ndaw ci réew mi boo paralyser ko ba dara doxatul dinañu comprendre dëgg-dëgg njëriñ bi nga xam ne Bassirou am na ko mais au delà de Bassirou Diomaye Faye njëriñ li nga xamante ne agent wu DGID yi am nañu ko ak ci ful ak taxawaay bi nu taxaw loolu yëpp pour mën a apporter soutien ki nga xam ne moom mooy seen confrère bi nu teg loxo. d'accord mais kii. Euh, waaw ma ma am lu ma jox tuuti parce que. Euh, impôt domaine dafa naa miin naa ko. 82 du tey. Pape Ndiouk Faye yàlla na yàlla yërëm ko. ñoom mm. Momar Diop ancien DG impôt domaine. ñoom de defe naa ba 78 ñu ngi leen joxoon Fiat 128. Hmm. moom dem Fiat dafa am 5 ans ñu joxal ay R4 R4 yi ñu daw nii. Hmm. ñoom inspecteur yoo lañu yoroon. Hmm. et nit bu demee ba nekk ENAM doo toog ko ndaw wala ENAM ENAM ko fa génnee daanaka mën ngaa téye état. parce que branche yi ci état yëpp ENAM lay bàyyi ko. préfet gouverneur administrateur mais ñoom ñoo téye koom-koomu réew mi. te ñooñu te koom-koom réew bu ñu demee ba commencé génn ndax nag dañu xam ne réew mi ñu koy foowee. Mm-hmm. moo tax ñu dugg parce que ci nekk mën nga am sa teraanga jàpp sa njaamur donc problème comme dans le temps mais léegi administration dañ ko rey mu dee. Mm-hmm. côté magistrat yi bu ñu demee un magistrat bu demee ba léegi bi muy waat xalaatu woon Macky sàll am na ñoo xam ne ba bi mu ci nekkee sa ba mag Sall boobu tout tànk la mais bu ñu demee ba ñu lay ñu lay utiliser ci kaw nga jaay sa dignité ndax lan wecc bi la jox. moo tax yonent yonent moytul nit ger baaxul day yóbbu nit safara mais bala nga dem safara sax fii la la yàlla du ma toroxale bala ngaa dee lépp da ko ñàkkaat kon nañ jël wan ne ku yore yor réew kenn ku fitnaal ku war yor réew da xam ne am na loo xam ne da koo jar réew mais du prison man de kër ba ñu mën ci rab karaj karaj neel benn gis mu lu lu lëndëm daanaka àdduna tukki na de te par xeexam ma fa yóbbu de. Mm-hmm. mais moo tax mu ne kaso fekk nit dugg fa du mën a xam métit ba fa nekk. say collègues yi ngay liggéey say doom sa dëkk ndoor mais loolu ñaaw la. ni ñaan daal am na loo xam daal ñaaw na te doomeel nag ñoo te adduna bi de. Mhm. Ah, ah ñoo téye adduna bi de. <laughs> ñooñu dañuy ay caaxaan il faut faire beaucoup te ñoom nag li ñu xam bëri na man daal ma bëgg daal président daal na na nekk de kilifa la buñ ko dugg ci ay petits détails yii te bàyyi administrateur yeeg. am eh, eh, am eh, personnalité yu leen jàpp di leen humilier di leen yenn umiliation daal franchement te yow chaque jour dama yàlla bal ci ñi ngi la ñi ngi saaga nit ñi di xas nit ñi te doo leen woo loolu nag par par bor loolu nag téeméer daal bu ci dërëm manqué matatul téeméer 499 la bu ci fukki manqué foo jëm bi maanaam kon sa popularité ci li ñu bëggoon ñi mi ngi wàññeeku bu baax te yooyu bàyyoo ci xel ñaan dal na ñëpp jumaay ak jumaay ak ñu moom nañ bàyyi ñu dellu seen liggéey ndax Sénégal yi ñu liggéeyal. en tout cas lii rafetalul seen image de. Ah, en ah. xam nga xam nga li ci naqari mooy Nabou Cor dans l'histoire on retiendra mhm. que ci régime bi nga xamante ne moom mooy régime mu Macky Sall il y a eu énormément d'arrestations yoo xamante ne c'était des hommes politiques mhm. on en parlera des années et des années encore ci génération bi ko fekkee ak génération future bi nga xamante ne ñoom ñooy jàng ji histoire après mhm. et pourtant on n'est pas duñu wax ne du mais c'est-à-dire que. solo. non histoire dafa garaaw de. histoire dafa doy waar. gis nga tey jii li ñuy sukkandikoo ñoom ci seen bilan matériel pour mën a di bàkk ak di fëgg seen dënd di wax ne ñoom seenub leader leader liggéey na réew mi noonu la ñuy bindee ci taarixu réew mi. nga baal li nga xamante ne moom mooy jàppe gu tar gi jëmale ko ci ay ci ay leader opposition. ma baal ma baal ma ñu nekkoon màkk doon final waa Kër Rasulaay. sallallahu alayhi wa sallam ba tey seen actuellement nañu am problème. koo jox mu ñu sa maam moo nekkoon diw. nangam la nangam la woon. waaw ndax lan histoire ko bind. te nag ku ne nag sa maam sa maam war na am ak bu sëta bu ñëwee war na am waaye ñu rafet te nag lépp dafa jeex ñu naan mbaa diw laa ilaa yow nekk sa maam yi leen meloon dara jaru ko euh, d'oppression mosuñu ko nemmeeku ci ci nguur ak euh, euh, opposition dafa mel ni euh, fi mu ni to fi ni nit mbir yi dafa gën a tagatémbe maanaam jàpp tëj bi dafa mel ni lu lu lu lu normal la. finalement waaw xam nga problème bi lan la man nag dafa am lu ma découvrir ci mhm. nguur bi loo xamante ne dëgg-dëgg arrestation sax xëy na daan na am xeex daan na am pour ay opinion gis-gis wala ay bëgg-bëgg yu wuute. ay euh, question de xëccoo nguur wala dama bëgg toog ci nguur gi duma fi jóge dama koo bëgg jox sama doom ñu ne la déedéet institué car bloquant M23 juddu xeex ya juddu ñi gàddu xeer ñi gàddu ay mat la mer gàddu loolu yàgg naa xew ci réew mi waaye <laughs> les gens avec quand même la liberté d'expression problème bi mooy man sama problème mooy ne ce que j'ai remarqué c'est fii maanaam danoo bëgg tënk nit ñi ci ñu noppi ba na waxati. loolu moo may déranger. en fait man loolu mooy rey sama xol bi. kenn ko de. man nabu li may metti mooy ne le fekk que ñii ñi amatuñu sañ-sañu sax exprimer wu. mais c'est-à-dire que maintenant dis-moi kii na craint pas dans ce pays de donner son opinion tranquillement kan. de toute façon même les personnes qui sont habilitées à donner leur opinion ont peur de donner leur opinion ñi nga xam ne maanaam war nañu mën a joxe seenu gis-gis seenu xam-xam dañoo ragal a wax. yow taskatu xibaar bi sax à la limite bu dee combien de journalistes engagés ngay lim fii ci réew boo ci limee fukk doo ci teg onzième ndaga mat na ko. donne des limites parce que la fin euh, moindre erreur bi ngay def euh, ci li nga xamante ne permettre nañ la ko ci sa liggéey parce que kuy wax ci wax la mën a juum da nga ciy juum wala nga am ci benn problème bu ndaw boo ko waxee à la minute qui suive mën nga auto euh, procureur mën na autosaisir ñu daal lay jël si fi nga nekk. waa léegi la jël si nga nekk après fu mu mujjee. ana Pape Ndiaye da ngaa dégg sax ku ci wax. Mm-hmm. dégg nga ku ci wax. garde à vue retour de parquet mandat de sax li mu am sax ci tollé. ñu koy xeexal sax ci bitim réew. Euh, bi nañ ko ci delloo. nañ ko ci delloo parce que tant qu'il il n'est pas libéré médaillon bi na fi nekk. parce que sunu soutien à Pape Ndiaye dafay continuer euh, di doon lu dëggu ci ñun te lu dëggu ci ñun. la dès le début kon li ñu jëmi nii tër wala ko am si dafa doon loo xam ne sunu gëm-gëmu bopp la nanu ko defee pour sunu confrère Pape Alé Niang noonu lañu koy defee pour suñu confrère Pape Ndiaye te combat bi dafa des ci lu bari parce que réew mi Nabou Cor maanaam seetaan ngee bari dafa bari torop dafa bari torop te xala dañu yegg foo xamante ne même si tu n'as plus la liberté de publier sur sa réseau social mais am nga problème tu ne peux plus écrire sur Facebook ou en tout cas tu pèses tes mots ou tu relis ta lecture ou de sa écriture bu baax tu ne peux pas écrire sur Twitter tu ne peux en fait tu on te demande de ne pas parler ou à booy wax xoolal li ngay wax bu baax c'est que fii maanaam opinion bi op man pour man oppression bi foofu la gën a nekkee sax le fait que déjà ñu mën a parce que ñii ñu jàpp et Bassirou Diomaye fay mi lu ñu ko jàppee dooy publication Facebook mm-hmm. El Hadj Malick Ndiaye c'était quoi xam nga au delà de ñu singili sax benn partie dafa dafa large non dans un sens beaucoup plus large li nga xamante ne moom la ñuy dund et vraiment ce serait pas sérieux de minimiser li nga xamante ne moom la ñuy dund ñun loolu moo gën a metti nga ñàkk ñoo jox ñu lekk ñàkk ñoo mm. jox ñu naan mm-hmm. nabu koor gis nga ki la tëgg téye say ñaari loxo téye say ñaari tànk kooku bu la dee xëy di la jox ginaar saa su nekk sax giw góowu ginaar googu yow dootoo ko sentir. waaw bien que ndax tënk gi nu la tënk. non seulement lekkatuñu naanatuñu ba màndi ba pare ñu ñu tënk ñu. waaye il faut ñu comprendre ne que nous nous sommes un pays démocrate et nous sommes un peuple libre. Mm-hmm. libre de pouvoir donner nos avis. libre de pouvoir nous exprimer de donner nos opinions bien sûr dans le respect des institutions je suis archi je suis totalement d'accord mais loolu soxlawu sax ay nit duñu ko rappeler parce que nekkuñu ci cadre boo xamante ne maanaam ñiy débattre ñëpp ay intellectuel lañu yaa ma ni fii léegi ne ma ni ñu jàpp ay cadre lañu kon ay intellectuel lañu ni ñuy déglu ni ñuy waxal ay intellectuel lañu ñi koy déglu itam euh, di ko bàyyi xel bu baax ay intellectuel maanaam Sénégal fii amul ngaaka bu fi ne fii ay boromi xel ñoo fi nekk donc ñooñu itam na nanu amee xel lanu amee xol mm. def seenu tànneef ci li nga xamante ne moom lañu bëgg ak loolu moo leen neex ñu war leen ko mën a nangul mais en toute simplicité en toute humilité parce que àdduna nag nit mënoo yow rek dëkk rek ñëpp bëggandoo la taamoondoo la naan la yow a yow ba kañ à un certain moment il faut que nga comprendre ne don bi dafay changer te bu done bi changer ci wàllum politique lecture bi nga ci war a am yow mooy nga comprendre ne non il une période c'était moi il y a une autre période ce sera d'autres personnes te dañu toll ci période bi nga xamante ne fu mu nekk nii Nabou nit ñi wóor na yàlla sonn nañu sax ci wax gi kaas gi liy waral ñoom ñëpp ñu bëgg taxawandoo pour bëgg am seen ay carte électeur lii moo ko waral mais li arrestation yu bari yi bokk na ci li tax ñi ñi faxandoo dem di wuti ci seen ay carte électeur nabu koor à quelques jour de la Korité nit ñi amul lu nu jëndee ganaar ma boo demee wàcc ci marché bi wallahi di nga xam ne lépp dëgg la ndax njëkk ya ca marché ba tar na ci góorgóorlu bi nga xamante ne maanaam mu lijjanti dépense ndogoom sax da koo tëj tëj waxuma la ak lu jublu ci wàllum fetum korite Sénégal gën nañu dund nabu bànneex bànneexu feet wallaahi nga sentir ne Sénégal ñu ngi ci ambiance de fête xam nga lu tax mhm. les nerfs sont tendus nit ñi dañoo crispé situation sociale bi metti mhm. situation politique bi tañ ci tàncuñu de telle sorte que nit ñi dañoo ragal a sax am fierté wax ne sax ne ñun ay sénégalais lañu loolu nag problème la cim réew. et puis tout à l'heure quand des arrestations tous azimuts dama fàtte euh, mooy élèves yi nga xamante ne ñoom nga doon tudd dafa am beneen vidéo bu ma seetaan aussi boo xamante ne euh, kooku nee na ki ñu jàpp maanaam moom manifesté wul non seulement mais dafa demoon pharmacie. Mm. bi muy ñibbi si ànd ak petite sœur am ñu wàcc euh, non euh, cousine am moo moo yàqamti ragal comme policier yi ni ñuy dàkkajeeg ni ñu mu frappé porte bi porte bi tëju moom ñu fekk ko ci bunt bi muy fëgg pour ñu tijjil ko mm. xooloo rek il ne manifesté même pas ñu daal di koy jàpp yóbbu tëj ci kaso bi finalement xàmmeetuñu sax kan lañu war a jàpp ak kañ kan lañu warul jàpp euh, Pape Ndiaye avant muy ñu koy ñu koy ñu koy jàpp muy nekk ci kaso bi suñu xel tout le temps du jug ci moom Euh, dafa euh, invité woon benn benn oustaz boo xam ne def na xaw ma nangami weer ci kaso bi mais bi mu génnee moom nee na da jàngale ji euh, gis policiers yi ci benn koñ mu ne day jàdd beneen koñ ni muy def di leen continuer ñu gis leen ñu gis ko ne ko pourquoi ngay wiiri parce que yow da nga doon danga nga doon manifester donc da ngay làqatu. xoolal loolu. téye ko jàpp nangami weer. donc hmm. finalement xamatuñu sax lan moo xew ci dëkk bi bu ñu demee ba. ñu naan euh, démocratie amatul ci réew mi c'est parce que liberté d'expression moo amatul kenn sañatul toog rek euh, xool li nga xamante ne moom la ñuy doxalee réew mi nga wax ci sa sa sa sa sa avis en toute parce que ce ce langage de vérité sax ñu koy ñu koy waxante suñu biir parce que tout simplement loolu laal ñu ne outrage à magistrat offense au chef de l'État. article 80 diffamation surtout man moom li ma xam moom kooku moom article non li ci droit jamono ji yëpp li ma xam ci droit jamono ji yëpp ah euh, arrestation nan laa koy waxee kidnapping lañ koy léegi moom kidnapping la ñuy def wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek la yàlla bëgg kidnapping ah, euh, beneen bi nu mu tudd. arrestation diffamation foofu. arrestation. diffamation. Ah, garde à de déedéet. Euh, retour de parquet. déedéet beneen ba. ban si placé sous mandat de dépôt. Ah, waaw sous mandat de dépôt. retour de parquet. retour de parquet ay waay waay lii lii lii. information judiciaire. waaw sunu maanaam dépp xanaa yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp tubaarkàlla ah, waaw sunu te bi ci jara jàpp rek oustaz nga baal ma mm-hmm. bi ci jar a jàpp rek ci droit yi ñu jàpp yépp mu tënk ñu ñun ñi tënk la tënk keneen ak keneen mooy nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs jërëjëf koor wax jàngoog yeneen yi ci des yépp du pour góor rawatina pour sénégalais bi nga xamante ne dafay ñafe ci suñuy lempo ci lañ leen di fay pour ngeen mën di liggéey réew waaw moo tax waa lempo loolu ñooñ ñooñ bu ñu gis nga lempo googu nag l'impôt googu nga tudd. Mhm. DGID. ñoom bu ñu téyee seen bopp ngeen xam ne lépp dëgg la ci réew. mami mami. waaw oustaz Sonko Karim ak ñëpp daal troisième mandat bi rek la coow li coow li coow yëpp loolu la kuñ fi daal troisième mandat la te léegi nag bis lañuy ñuy xaar ba borom wax. Mhm. bis la ñuy xaar muy wax xam nga naan man daal bëgg naa ne yàlla bi muy sàkk àdduna euh, bi par étape la kii juddu mooy nekk président kii juddu nag du nangam nangam. mais bu ne yàlla na nanangoo nga kii ma dama ne yàlla mi fi indi ngi sax am ñoo xam gëmuñu ko ah kullu xisbin bi ma ladayhim faariquuna kenn ku nekk sa choix nga yaay am sa choix bopp nga dem li nga yoro ñàkk ko par foo dem yoon félicitation mais way wow bu kenn yàq waay ko yàq nag te kenn non xam nga Sénégal Sénégal la hmm. man nga am nag soldaar am lépp nag waaye nag Sénégal yi yaa ngi ñoom a de. waaw ah. nit li nga yore ba ne ma ñàkk ko. ca yàlla nag fi ne kenn wëratu la yaa ngi ñëpp koo na fayu. <laughs> waaw ñun lu ñuy dund nii lii lii eh, lan eh, lii lii lii eh. lan la lan la oustaz lii lan la ñun lu ñuy dund lii lan la doy na waar may anta dugalal dugal leen soose waay ah waaw soose na man li ñuy dund nii man naa bëggoon xam man na bëggoon xaaral ma tekki li ba xam bëgg comprendre lii lan la daal Ah. maanaam forme bi nii te xam nga nabu billaay nabu nag yàgg na noo mettital sénégalais yàgg na noo sonn nag du dëkk yàgg nañoo sonn mais mais musul yegg tëj oustaz jaaga nabu koor à ce stade là moom c'est abusé tëj ñu nanu bu leen génn bu leen dem fenn 21 heures toog leen seeni kër ndeysaan ñi nga xam ne nanoo fàtte woon couvre feu bi dóor nañ leen ay yat ñii ñu liif leen ñii ñu dàq leen ñu daw a daw a daw ba fëx dugg ca kër jàmbur Mm. wala yaa ngi dégg. loolu yëpp ñii ñu pompé loo leen ñii ñu yenn loo leen ay taabal ñii ñu dox loo leen ay kilomètres ku ci nekk ak bettit bañ lay teg loolu yëpp ñu dund ko yaa ngi dégg séddale bi lu jëm ci wàllum ceeb geek macaroni gi da nga bëgg ma dugg ci. loolu yëpp ñu di ko dund. ñëw ci wàllum séddale li nga xamante ne moom moo jëm ci vaccin yi loolu yëpp ñu di ko dund ci métti ñu bari loolu yëpp nag nanu nag finalement sax nag loolu taxoon ngeen di dund loolu yëpp xaalis boobu am na foo xamante ne maanaam njuut njaaj am na ca daal fu njuuj njaaj gi mujjee ba pare dañ noo bëgg détourner de l'essentiel man li man metti ci Sénégal mooy dañuy jël benn sujet rek bëgguñu ko imposer ñi ñi war koo mën a waxtaanee fàtte également les sujets eh, du nu fi fàtte li nga xamante ne mooy rapport yu ñu épinglé yëpp ñii nga xamante ne nee na dañ cee teg coom-coom yi ñu ciy jot a teg seen coom nag Covid 19 bi ci la bokk. ka ah, bu la ñuy confier dig boobu ba tey avancé wul na yotaa te pourtant arrestation yi nga xam ne dig da ko yor boobu moom day gaaw ma placement sous mandat de hmm. dépôt moom nag day gaaw lool lool lool Adama Samb États-Unis maa ngi leen baax waaw oustaz njiitu réew mi dafa mel ne wax wax la li daan wax yëpp gars yi enregistrement la wax xam catam la moo tax moo tax ñu ne kilifa bul gaaw di wax bul gaaw réactionné daa waxoon man li ma ci gën a yéem mooy maire gàddu ko mu yorom mat daal la xum du fi amee ba bëgg dem ñu ngi yët benn télévision moom ak Moustapha Niass ba ñuy kaas naan lii moom suñu bakkan lañ koy jaay baat boobu mi ngi fi de te baat baat ba ndongo way la woo xam day continuer ba sët yi ñëwaat ñëwaat. Oustaz Oustaz sama xarit nga de mais kilifa day wax kilifa du noppi. parce que kilifa day wax parce que xam nga dan la ñuy xàmmeewee kilifa dëgg dëgg dëgg mooy mu fexe ba ay kàddum di ko tënk. nit da nga war a def say kàddu di la di la di la tënk saa su nekk di nga toll benn moment boo xamante ne say intérêt personnel da koy jël nga teg ko fële nga jiital li askan wi di wax askan waa ngi jooy H24 mami li mu fi énuméré yépp tey leneen loo ci tegaatoon da ngay yokk euh, ci ci ci ci siwo bi ndox waaye fekk na siwo bi rembet ba pare. Mm. ndax lu ne jaar na fi. Seynabou. Mm-hmm. Kéema Mbaye yàlla na yàlla yokk leeram. amiin amiin yaa rabbal góor gu am dignité. Mm-hmm. ñu nag lu bon bon xam nañu mag Sénégal tuuti nga taxaw ñu bëgg la def loo xam ne bii sa yow man sa bàmmeel jaru ko mu dem ci wasilaam ne ko ah lii nii lii naw si Malick loo ci yaakaar laa jàpp ku baax ki mu ko bu la sa bàmmeel xoola sa bàmmeel ak ak poire loo ci ganal mu ne ko sa bàmmeel laa mm-hmm. bëgg mu sedd mu ne ko ba mm-hmm. mu yële démissionné ba mu yële démissionné tey bàyyi na fooy yoo xam ne ba yow man xam du kii kon lu ko fi jar dara jëre ko fi Ah. ah waaye xaaral ma jël sama sama sama sama sama gan gi soo si Ndiaye comme moom heure bëggee dugg lay dugg